Jordan nuyu naa la eh, Jordan booba ba léegi yow ak doomu dàng jotagu leen wax mais dama leen a bëgg a xamal combat bi du ma ne combat bu gën a neex la waaye combat bu neex a ngi nii. Mhm. mu di Jordan ak doomu dàngu ndaxte xam naa ne soxlante ngeen. l'un waaye maa ngi leen di yëgal leen de. bu mhm. fi jéem a yóbbu nervosité yaay daan. ci yéen ñaar waaw ñoom ñaar ñii dama leen a xool ku mer rek bu arbitre bi ne per ku mer daanu nga. waaw te am na ci ku ma xamante gis xaw ma day ñàngal <laughs> ma day def waaye ku ci mer di nga loolu nag man ak yàgg ci làmba tax ma wax ko Jordan. waaw père man combat bi kenn mu mos a merloo mais am xam nekkul yoon. waaye ay kilifa ñoo fi toog waroo jóge sa fi nga toog ñëw tiim nit ki poñe ko naan na nga teg nga am jenn kàddu yi ngay jéem a saaga yooyu naa insul kii bu ma saaga fekk ma toog fi loolu dafa ñaaw. dëgg la ah, ah, ah, non dafa ñaaw nekkul lu rafet dafa ma metti waaye waruma fekk ñëpp ñëpp a ngi toog di wax seen wax waru ñëw ba tiim ma naan ma dinaa nangam dinaa nangam fan la ko teg mënu ma yëngal mais am loo xam dafa rafetul waaye na ma jox cër jox ñu koy seetaan cër li si des nag bu ñu demee làmb ñu reyante ku ne toogal fi nga toog loolu rek moo ci moo tax sax bëgguma sax waxaat instant instant dama bëgg a ñibbi doy naa sëg la laa bëgg. non non ñibbi. déglu moom wax la. Mhm. sportif yàgg naa dégg loolu. Mhm. ci football. ci mhm. basket. ci làmb. loolu si géew ba. si géew ba na ma saaga non même ci signature. contrat ci géew ba. non signa Mohamed Ali. le grand Mohamed Ali boxeur. ci biir pesée signature ci la daan wax adversaire am lu ne. et eh, Lac Rose yéen ñaar déglu leen waaye. ci la daan wax adversaire am lu ne. mais du tee dañuy dem ni ba loolu yëpp pour lan la pour wàññi ko. loolu yëpp dëgg la. y de dëgg la. mais boo fonk sa yaay da ngay fonk da fonk yaay jàmbur. waay. da ngay fonk yaay jàmbur fonk sa yaay. mën na wax lu ko neex mais bu mu dugg si yooyu. ndax lu ko neex nga ñëw dee ma wax ma lu ko neex dama toog ma retaan ñu dem ki du ma merloo. mënu ma merloo si bisu combat loolu xoolal teg naa ko bind naa ko teg naa ko ne la. mais dafa jekkul fii. waaw bokk ci dañu xaar ba bokk ci sax. Jordan. waaw onze bi la doomu dàngu. père kii man manuma jaxasee àdduna. fii ay kilifa rek a fi toog. man képp ku ma xam si làmb yar ak discipline la ma xame ñu bëri sax dañ naan dafa tardé si làmb ndax yar. mënoo ma jaxase àdduna yow boo ma saagawul yàlla nga ma daan. waaye yow sëñ bi yow boo ma saagawul yàlla nga ma daan. yow boo ma saagawul yàlla nga ma daan. man mënoo ma jaxase àdduna man suma yaay mooy suma lépp mënoo ma jaxase àdduna fonkal yaay jàmbur combat bi yaa ko jël da koy bëre mu neex mu naxari fële la bu la neexee nga teg mikro bi génne loolu fii fële la Jordan man li ma daan bëree per dama koy indi muy lan bu taxawee ma duma ko Jordan mi mu koy neex mu koy naxari boo hmm. taxawee dama lay duma man lam kenn mosuma duma nañ dem boo taxawee ma duma la père li nga wax da nga ko dëggal waaye yow wax jaru muy bari ma man lu xoolal père man lu ma mas a wax si làmb def naa ko. Hmm? lu ma mas a wax si làmb def naa ko. mais lay tëb bii bi ngay jàpp sa gémmiñ di yuuxu. waaye yow yow yow da ma mën a yuuxuloo yow. yaw baax na yow mënoo ma yuuxu yàlla baax na yow mënoo ma yuuxuloo. loolu yàlla moo xam. waaye yàlla moom ba mu baaxee du tey. dama ne mënoo ma yuuxuloo. loolu musu loxo yàlla sëñ bi xoolal man mënoo ma jaxase àdduna. loolu musu loxo yàlla dama ne la waaye yow yàlla ba mu baaxee du tey. waaw loolu musu loxo yàlla signature ñu fi indi da ngay wax si signature nga jël lee teg ko père kii dafa tàmm saa bu jëlee micro. toog na sax naan ay mbokkam xaw ma lii ak lii ak lii man la laa ay mbokkam. yow laay bëreel seen bi mbër xol seen bi musuma bëri mbër mooy mooy xol musuma bëri benn mbër mooy dépassé ma kii waaye man lijjantiwuma loolu amoo moo tax waaye yow waaye yow man daal de moo gàtt loolu oh, <laughs> seen bi yaa ngi xas lébu yi eh, de lébu yaa ngi xas lébu yi de ay lébu kon yow kontaanoo kenn barki Seydina Muhammad bu dee kontaan ay ma daan kii kii kontaanul géeju bar ñi la taxaw géeju bari sama koñ borom seret bu romb mu nekk kaay may ma contact. amul ku mu entraîné waaw a kon maa ngi contact la. Zarko liggéeyul. falal fer maa ngi ñaanal sama mag yi aussi ama ne di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal aussi ay Zarko fu mu demoon yow dama lay teg lu mu neex la mu naxari la yàlla waaw per nag li may wax rek mooy ah. combat bi man dama ko fonk lool lool lool lool lool. waaw parce que lépp lu waroon ut rek ci làmb. Eh, combat bi mën na ko taxawal dañ lay laaj. lan nga wax ci li ñu wax léegi ci li Père Max wax léegi ne képp kuñ ne moo bagarreur la moom ak Jordan fi ñu jaar yombul te yow dañ ne ci fais partie des meilleurs bagarreurs de l'arène. non kon bii day doon exception. ah. Mhm. ni muy nekkee exception donc lii. nga règle bu nekk day am exception. Ah, waaw nu muy nekkee exception. ci dama ko xam. damaa jàng léppam. ci lan ci làmb bi ñuy def. kii daan na Forza bi def dama ko xam. kii daan Forza jour bi Lac Rose di daan Modou Anta. waaye kii daan na Forza c'est vrai. loolu du dara ci làmb. Hmm. doomu dàngul bëreeg Jordan pour nga mën a àgg ci surface am. Hmm. ci xeex nga koy basé wala da nga koy basé wu ci xeex wala bëre. ci lépp ci ñaar yëpp ci xeex ci bëre li ma bëgg ci moom dinaa ko def. da ngay xeex doo ko bëre. lépp mën naa bëre xeex mën naa xeex bëre. lépp lu làmba ju laaj dama koy def pour am ndam. <laughs> Jordan incha allah dina am ndam. Jordan bëri super lourd bu mel ni Jordan ak ñi nga doon bëreel. Hmm. ak taay bi ni différent yi ndax combat bi bokk na ak combat yi daan bëre. moo tax combat bi neex ma. ndax lan. buñ cummee koo taxaw dinañ wax leneen. du la oh, dama ne buñ cummee koo taxaw dinañ wax leneen <laughs> kii li ma ko waxoon fii rek laa koy waxaat lu dul biir ak wen duma ma ko ëpp ci làmb ji. Jordan. non jeex jeex na. mais Joroon il faut nga wax moo may dara xam nga. Joroon il faut nga wax Joroon. waaw day wax ay yoo xam ne ay jigéen ñoo ko. léegi balaa ñoo ñëw ci daj dëpp gi. ñu dem yéen ñu woote baal ñu oote. baal ñu oote combat bi père. père bu ñu fàtte combat bi. mais doomu daanu combat bi di nga ko seetaan. combat bi ñuy wane si télé bi mos nga ko seetaan. combat am yëpp yi mu bëree maa ngi ak moom. mais gis fii gis nga technique bi nga xam moom la fi Jordan bëree. kii Jordan kan la. Jordan Forza Alfayda ah d'accord kii ni ma koy daanee sax Forza moo te jël bi ñëwagul jotoon lu rëy la. bëri lu mu la jox génn ko ci amul lu mu la jox kon. day génn ci combat kooku di sama mag di sama ah, kilifa. amul lu mu la jox combat bi perte. waaw jox waay koy woo di woo waa lu mu la jox da lay yokk jël di wax ne di wax ne. <laughs> Eh, eh, mu ngi la doon wax. waay yow yàggaat si bi nga xool. bañ si di wax ne ci combat bi. di wax ne. si wàllu mobilisation. parce que ko ci maa ngi koy ñaan yàlla ko yàlla may ndam ku sonn si làmb la champion la li ko dal dafa man daloon ay jamono. kan mu met kii. Lagros. mu metti woon trop. seen bi occupé sa combat damay xool xam ne kii champion la ko yàlla may ndam. man damay xeex man damay geer. ayca mais Jordan li may wax ci wàllu bi. dafa am na mu yaakaar si ñu waaw moo tax man ne bi ngay wax man ba léegi wax ma dama toog di la déglu dama toog di la déglu dama toog di la déglu ah, na sañ-sañ. mais dama la laaj. Eh, sama mbokk taal bi eh, eh, yoroo micro yoroo kii doomu dangu. ay ca continué li may wax damay oo lébu yëpp. la nga amaneex bu yaakaar suñu na. Ah. mais amaneex yow tam yaakaar suñu. amaneex bi ngay wax dama la docteur déglu ma la. yoroo micro li ngeen diw ma la sax. yoroo micro. voilà singale wu la. waaw ba tey wax ma xuri la. ok. waaye wax ma grand Dakar waaw li may rek. ay ca damay oo waa Tëngéej yëpp ak lébu yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ñëw si combat parce que combat père bu ñu waxantee dëgg rek yàgg na metti na waaw parce que combat bi duré na at ñun dërëm yoratuñu ko man boog dërëm dërëm dërëm yoratuma ko <laughs> maa ngi si au autorité yëpp doomu daan dagguma la maa ngi au ma ni dagguma la euh, ñii seen combat dafa nekk combat boo xamante ni moom mooy drapeau diaspora boo xamante ni consul bu nekk New York moo la nar a jox seen drapeau ñu ngi nuyu waa New York yëpp ñu ngi nuyu waa 116 waaw mais tamit dafa lu ma ci bëgg yokk kii dafa jënd un million moom mi moom balaa ñoo wax si loolu yow ñaata naka lay demee <laughs> wax ko benn yoon mu kon mu doog parce que moom sa pare naa billet yi nu muy demee pare ko ma def da pare waaw waaw mais na ko wax ñii du yéen naka lañ koy jaaye naka la billet yi lu muy jar waaw billet yi waa kay billet yi waaw lépp loo xamante ni vert la ci kaw. dañ ko def 1000 francs vert 1000 francs waaw lépp luy vert mille francs la. waaw jaune. lépp luy jaune 1000 francs lépp luy jaune 1000 francs la. loolu pour permettre mbër yi ku ci nekk mën a mobiliser. ak jeunesse bi. ak jeunesse bi. lamb jeunesse bi la. parce que dañ ko comme ni ko moo waxee gala de la jeunesse la. Mhm. waaw defe naa ni ni ko père Ibrahima di waxee. mbëri mbëri jënd bi xam naa bi. nee na diggante kan Mbengue ak Robert. ngeen gën a gis combat 1000 francs waaw waaw waaw vingt cinq ginnaaw wala Père Mbaye mm-hmm. ah waaw waaw ñoom yoruñu micro mi ngi noonu waaw yoruñu micro léegi bu ñu ñëwee ci côté rouge bi rouge bi comme euh, Père Max ni ñu ko ñaanee waaw dañ koo def 5000 côté découvert bi rouge bi waaw L yi L yi mooy waaw 5000 loge boo ñëwee ba annexe loge waaw ñu def ko dix mille. di cinq mille dix mille. dix mille dix mille. boo demee loge ñu def ko vingt mil ci kaw léegi nag kon ñun chaque fois dañuy jéem a innover. VIP yi kenn mësu ko ubbi ci làmb dañ koy ubbi. waaw mooy néeg yi nekk ci kaw gars yu dem nañ ci làmb ji mësuñu ko. ay salle la mooy salle. VIP genre salon d'honneur yi. salon d'honneur la nga ñëw récupérer. waaw. donc VIP yi dañ koy ubbi. mais bu fekkente dañ ko ubbi est-ce que li ñu war a def ci sat bu mel noonu ay lekk ak. lépp dafay nekk lépp ak yooyu dana fa am. waaw foofu VIP yi prix dina dem entre trois cent ba un million. ci ah. VIP yi waaye innovation. leneen li ma ci bëggoon yokk mooy. Mhm. Papay Akon mi ngi fi. dañ ko war a sargal ci bés bi. tudde woo ko ci laam. te Akon a ngi ñëw. Akon dina ñëw. dina ñëw Sénégal incha allah ci lu dul mhm. yàgg pour wane rek fête bi feetu jeunesse sénégalaise yépp la. Mhm. encore une fois dañoo bëgg ñun ñëpp ñu daje en tant que jeune. mu nekk gala boo xamante ni dina neex ko comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay hmm. mais nag combat bu ci nekk grand combat la. waaw